2024 waaw am mbërëm mbërëm APR di nga mën a jàppale kooku wala yow fi mu ne ni opposition nga bokk te doo ci jóge man bokkuma opposition bokkuma pouvoir. foo féete kon. xam nga fan laa féete. Hmm. Sénégal. waaw mais opposition nga mooy lan mooy lan déedéet déedéet fi ma nekk nii candidat présidentiel jàppale wu ma kenn. Hmm. pour l' man sama bopp aussi waxuma ci dara parce que euh, jullit la dañuy mëbët. yàlla. mais vous êtes un champion des probabilités des combinaisons. jullit lañu dañuy mëbat fii ak élection yi fii ba juin. am na lu bëri na lu bëri mun na xew. gisaguñu luy xew. donc mun xaw ma sax lu ñun daal li ñuy taxawal li ma la mën a wax danañu taxawal kuréel boo xam ne li ñuy dowal mooy nañu fexe ba débat bi dellusi ci question stratégique yu réew mi. Hmm. mooy. coût de la vie mooy agriculture bi mooy la question des mines des ressources extractives pétrole gaz ak yooyu mhm. problème ndox mi nan la ñu fexee ba béykat yi am ndox pour ñu mun a cultiver toute l'année et cetera ci yooyu lañuy ñu delloo si askan bi mhm. pour que ñëpp nag mun ci wax pour que aussi techniciens yi suñ ci waxee ku nekk nga am ci loo am mhm. ñu demee nag bi ay juin bi bi arène bi leer à ce di war a joxe si gën a ñu jël position. des derniers mais jamono ji soxlawul jël position. des dernières euh,